asalaamaaleykum maa leen di siyaar yéen ñëpp euh, ku ci nekk ci turam ak santam tey ji nag maa ngi ñëw di def loo xam ne dina xaw a difficile dina xaw a difficile tuuti mooy seere ci koo xam ne yéen a bokk yéen a bokk benn ndey yéen a bokk deret maanaam sa mag loolu dafay xaw a difficile euh, mais Cheikh Sarr dafa nekk sama mag nekk sama sama xarit ba pare nekk sama moroom dafa nekk sama mag nekk sama xarit nekk sama morom wax jooju wax ju doy waar la Euh, donc ñu bokk gëm-gëm bokk tolluwaay bokk nu ñuy defe bokk sax lu ñu xam donc lu yenn ci moom fanaan ci man lu fanaan ci man yenn ci moom am na nit ñu jege ñoo xam ne sax euh, donc ñimewuñ ñu kenn du kenn doo ñimee toog ci kenn ki di wax ci morom mi doo ñimee toog ci kële di wax ci kële on ne tellement proche donc loolu nekk loo xam ne lu rafet la Cheikh Sarr mel ni mu war a mel nekk sama mag ba pare mel ni mu war a mel dafa mel ni mu war a mel su mel woon ni mu war a mel dafa xëy na dina difficile du ma xam fu ma def samay tànk mais Cheikh Sarr dafa tax ma am fit am fit man ragaluma dara li may wax chaque jour koo tooñul koo tooñul bu ko ragal koo tooñul bu ko lijjanti l'essentiel ànd ko bul tooñ donc. Euh, man daf ma yok fit ci saayir yokuma ma ci baat yokku ma ko ci baatin parce que euh, man damay dundu ci moom pour dund ndax jikko ju rafet ji mu yor donc dund bu rafet bi ñuy dund donc mu nice euh, te dara dara dara ñaaw dara ñaaw Cheikh sal musuma def mu metti Cheikh sal musuma def lu metti affaire bu garaaw la leen di wax nga am def la metti dafa man mus ko def xëy lu ko metti mooy jour bi ma wax man ak ba ci àgg ma gëdd ko enfoncé ko waaye jour boobu man maa mujj am na metti ndax maa dem ba tëdd ba caag j'étais pas quitte avec ma conscience mais ngi sama téléphone woo ko ne ko grand sànq ñoo ngi wax gëdd naa la mais maa ngi jéggul baal ma àq munu ma non waaye man loolu fàtte naa ko lan nga ma wax non ma ne ko saay man maa wax loolu baal ma maa ngi jéggul yow waruma laa gëdd yaay sama lépp yaay fii sama yaay yaay fii sama papa gisuma kenn yow laa gis yow da ngaa war ñëw fekk moom ma toog nga dóor ma ay yar xoolal mu sukkal la jour boobu da may yar da ma gën a xamal àdduna parce que tey jii mënoon nga wax ma wax ñu xuloo mu am problème mais da nga ma dóor te sa te sa loxo laalum donc dama lay ñaanal rek yàlla defal la xéewal gudd fan euh, sutura àdduna ak alaxira je que. li ma lay ñaanal mooy dama lay wax ni la di ñuy waxtaane man ak yow chaque jour yàlla nañu ko yàlla defal yow xam nga man xam naa li ñuy waxtaane man ak yow chaque jour yàlla nañu ko yàlla defal donc loolu rek laay ñaan euh, mais yàlla bari na sutura waxtaan bi dafay xaw a difficile dafay xaw a difficile pour mu àgg ndax ndax sama mag gi ni ma ko jàppe moom moo moo am solo dama ko jàpp-jàpp boo xam ne du jàppante quoi du jàppante donc tey ji dafay xaw a difficile damay préférer sax ñu arrêté vidéo bi bu ko defee bu ko defee euh, loolu daal lañ mënoon moom moom lañ mënoon wax nañ ko parce que li nekk sama xol ak sama xel jëm ci Cheikh sama gémmiñ bi nekk na tax bu ndaw pour mën koo exprimer non non mënu ko mënu ko dañuy jëm rek donc happy birthday to you brother yow dundal dundal ba say maw di baawaan dundal ba say maw di baawaan jaajëf